asalaamaaleykum mbokk ndakaaru asalaamaaleykum mbokku bitim réew asalaamaaleykum la coalition benn Bokk Yaakaar di jiital ci lépp nag sunu xarit sunu frère sunu leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba liñ naan tey nag li ko yëngal li koy li yëngu li ko yëngal la ko ëpp doole tey dañu laal nit bu xam ne ñun ba ñu juddoo Medina gii la juddoo Medina gii lañu ñu yaroo Medina gii lañu ñu màggee waaye dañu mësta gis ku mel ni moom ku gëmee ni ni Cheikh Ba gëmee président Macky Sall dañ ko gisul ci kenn ci Medina Cheikh Ba nit la boo xam ne kenn xamalu ko ay wax wax da koy tardeel mais am na nag ay waxkat am na nag ñu ko gëm am na nag ñu ko bëgg rawatina coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne depuis le président Macky Sall falu en 2012 tuddatul APR coalition bi la tudd kon bu ñu laalee ki nga xam ne dafa nekk ci xolu coalition bi di l'homme social de la Médina di nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku jub ci liggéeyam nit ku jëlee Médina démb indi Médina démb fa mu nekkoon yàqu mu indi ko tey ba ñëpp a gis ci seen bopp kooku dinu seetaan kenn di ko fàkkaagal Cheikh Ahmed Tidiane Ba doomu Medina la gëmul lu dul président de la république ñu nit gëmuñu lu dul président de la république ndax kenn réeroowul mbir ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba nu mu mel tey président la ñun ñuy toog nu nu mel tey président la muy nit nag bu yore pusoom di ñaw cheikh a ngi defar cheikh a ngi joxe cheikh a ngi dox ku bëggul président Macky Sall sax boo jegee cheikh ba bëgg président Macky Sall ñu koy liggéey amaana xawoon na jafe ci ñun xawoon na jafe ci ñun lool mais bi ñu duggee ci Cheikh Ahmed Tidiane ba yëfi yàlla def ñu ko yombalal te bu ñu naanee ndox ne depuis les élections locales huit mille cinq cent voix du lu nu xëy rek am ko dañ ko liggéey yombul kon kooku képp ku xam ne danga nga koy da nga koy da nga koy jug naan da nga koy wala da am looy wax ci moom lu jaaduwul yaa nga yàqal président Macky Sall te nag l'union fait la force président Macky Sall moo ñu ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba laa jiital ci benn Bokk Yaakaar ñun nag bu dee lu ñuy gëm-gëm la gëm nañ ko wala li nu bëgg bëgg nañ ko wala bëgg nañu président Macky Sall mi nga xam ne lu lu nu mësul woon am ci Sénégal moo am ci Sénégal mu indi ko fi liggéey ko ñëpp a gis ko yàlla dox ko doom ju mel ni doomu Atoumane Badji mu liggéey lu rëy ci Medina ba tey ñun ñëpp ku ci nekk boo amoon lu la naqare rek sa xol sedd na ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba kooku dafa mérité nag un peu de respect kooku dafa mérité ñu sargal ko kooku dafa mérité ñu jàppale ko te lépp luñ koy jàppalee rek président Macky Sall moo tax élection yi passé firnde na ko wane na ko ñun ñëpp a jugoon di xeex yàlla muy maye ndam xañ ñu ndam may ko monsieur le maire Bamba Fall ñu koy félicité bu baax nag ndam gim ko may monsieur le maire munoon na dem yeewi askan wi monsieur le maire munoon na dem feneen mais dafa boole léppam ñëw jébbal ko Macky Sall ne ko dama lay jàppale ci Médina ñu defee ne jeex na mu ne jeexul de amoon na ay leader yu fi ne am na ñeneen nag ñeneen ñu xam ne ay kilifa la ñu nekk ci biir Médina mu teggi fa ñëpp tànn kan ki nga xam ne day jëmale Médina kanam ki nga xam ne ku ànd ak moom am dam am ndam mu ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba laay topp ci gannaaw jàppale ko kon loolu wane na lépp ay njañam dugg nouvelle vision taxaw wax na Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu neex mu naqari moom la ñu jàppale parce que kuy dem da ngay wut kuy demaat ah te Cheikh day dem dara du ko téye incha allah day dem ñu ànd nag moom ci ngor ñu àndak ak moom ci teggin mu jàngal ñu dal jàngal ñu lii ñuy def du lu mu yëg lii lu muy def lii ñuy def gënalu ko waaye nag wax dafa jot il faut ñu wox te ku ñu dóor nag danga nga ne ayya wala metti na te ki ñu laal dañu laal xolu Medina. dana danu laal ki ñëpp a bëgg kon tey jii bu ñu toogee ba sub tey bii ñu yeewu démb dégg li ñuy wax sunu camarade Farba Ngom wax ko loolu daf ñuy jaaxal daf ñuy metti et eh, en 2017 man ñaata yoon gis naa fi far ba Ngom ba tàyyi mu ñëw seet si frère am Cheikh Ahmed Tidiane kon lii boo amee tey man wax ji daf may jaaxal ma wax nag bu dee dafa am ñu nekk ci gannaaw nanu bàyyi Cheikh Cheikh dafa ànd ak doomam nanu bàyyi Cheikh Cheikh dafa ànd ak ay jigéenam nanu bàyyi Cheikh Cheikh dafa ànd ak ay xale ñu xam ne nag dafa am fu ñu bëgg a dem te suñu teraanga kenn duñu ko xañ ndax depuis mu dëgg dugg Medina ba fi ñu toog di liggéey ci sociale boobu fi ñu toll tey toll wuñ fa woon kon kooku xaaru ba di liggéey président Macky sàll bu jëlee Cheikh jël lu des lu nekk CDC dégg ko ko raxam ci raxam la ko jëlee jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu liggéey fa liggéey bu rafet jàppale ci ba fa ñu nekkoon ñun ñëpp ñu taxu si si moom kon bu ñu gisul woon ci moom avancement du ñu ànd ak moom nanu bàyyi Cheikh mu liggéey may xamal leen ne rek président de la république moom mi nga xam ne kenn ñoruñu ku dul moom ndax nu nu mel moom la bu la kenn jaxase kenn ñii ñëw di la wax dañ lay nax boo bëggee li xam Cheikh liggéey biir Medina bu ñu bëggee xam ni Cheikh tollu biir Medina nanu wàccal seen bopp ci terrain bi ñëw waa laaj waa Medina Farba fi nga dëkk dafa sori yeewoo woo Medina dëkkoo Medina dëkkoo Medina añam nga dëkk ñun lijjanti añam la fa xew ñun lijjanti wuñu la kay lijjanti añam lijjanti kay marchel añam waaye nag sunu Medina ñoo ko moom munoo dëkk añam xam li ne fii te nag damay dalal xelu eh, président de la république nous sommes prêts sunu xeex yépp pour au soir du 31 euh, juillet ñu jël ndam li sedd guy jox la ko ànd ak monsieur le maire Bamba Fall mi nga xam ne moom la fi yàlla teg mu nekk maire bi ànd ak sunu leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba jàppandoo bokk ndey baay jël victoire bi teg ko sa loxo ndax Bamba day dem Cheikh ba day dem xamuma leneen mais ñaar ñii dañuy dem te ñun kiy dem la ñuy àndal